ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen bal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot ci suñu jataayu xam-xam yi ñuy ànd ak yéen di ci leen fàttalentee ndoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ci suñu jotaay yooyu lañuy ñuy dellu si ak yéen rek ñu tolloon ak yéen ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu jagleel euh, bunt bi nga xam ne moom la jagleel kayfiyatul imaani bi rusuli alayhim asalaatu wasalaam naka la ñu war a gëmee yonente yi alayhim asalaatu wasalaam ci téereem bi nga xam ne moom la tudde jazbatu sigaari an laibin li xidmatil muxtaari bunt boobu ci lañu tolloon ak yéen ba suñu bind bi mujj ñu ngi woon ak yéen ci toll ak yéen ci bayit bi nga xam ne moom la sëriñ bi di wax ne wal mashyu li suuxi wa aklin wa sharaab li annahu yaziduhum xayra sawab foofu sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñu ci doon leeral yi nga xam ne dagan na ci yonent yi ñu def ko te du doon ayib ci ñoom waaye du doon lenn loo xam ne day gàkkal seen woote itam kon ci bindu boobu lañ taxawoon sëriñ bi di continuer rek di wax ba tey ni amma ala sidqihim ad dalilu fa mucjizatun anzala aljalilu makaana xawlihi taala xad sadax abdiyaza fi kulli ma axbara xaq sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi leeral foofu ne amma ala sidqin daal seenu dëggal ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam ad dalilu mooy ba fa mojizatun ay kéemtaan lay doon yoo xam ne anzala wàcce na ko aljalilu aji màgg gi di suñu borom bi subhanahu wa taala makaana xawlihi barabu waxam ja taala màgg na xat sadaxa dëggal na abdiya sama jaam bi zaa ci lii nga xam ne moom la indi fii kulli ma ci lépp loo xam ne axbara xibaar na ko xàqun dëgg kon yonente alayhimu salaatu wasalaam dëggal gi nga xam ne moom lañ leen di dëggal ay tegtal la yoo xam ne ay kéemtaan la yu bàyyi ko ci suñu borom subhanahu wa taala mu boole ko ak yónni gi mu leen yónni ngir kéemtaan yooyu buñu ko feeñalee ñoom yonente yi alayhimu salaatu wasalaam loolu uh, dafay gën a dooleel li nga xam ne moom la ñuy woote jëmale ci yàlla waaye itam ay tektal lay doon yoo xam ne dañuy wér ne tegtal yi Euh, ak kéemtaan yi euh, ku dul ku suñu borom bi subhanahu wa taala dimbali mënu ko waaye ku ku suñu borom bi subhanahu wa taala yónni mënu ko comme yonenti moom su suñu borom bi subhanahu wa taala bu ko yónni dana ko booleek ay mujizaat yoo xam ne saa bu ko ñi muy yónni naree diingat wala ñu nar ko weddi mujizaat yooyu muy kéemtaan yooyu bu fekkee ne yonent boobu wone na ko loola dana tax ñi nga xam ni ñoo ko bëggoon a weddi gëm ko waaye dana tax ñi nga xam ni ñoo ko bëggoon a diiŋat itam ah, ah, taxawlu ci bu baax a baax ci diiŋat googu nga xam ne moom lañ koy diiŋat kon loolu ay kéemtaan lay bàyyi ko ci suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne kéemtaan yooyu lan lay doon wahiya mujizaat yooyu amrun mbir lay doon moo xam ne xaariqun day xotti baax yu nu day lënkaloo daawa risalati lazi Euh, wooteeb euh, message ka nga xam ne yuayinu dana jaanteeg euh, ñi nga xam ne ñoom lay woo maanaam dana jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom lay woo nee na mujizaat yooyu de muy kéemtaan yooyu boo ko bëggee xam mbir lay doon moo xam ne mu xotti baax lay doon moo xam ne nitu kese du ko man nitu kese du ko man waaye day lënkaloo ak woote gi nga xam ne moom la yonent boobee nga xam ne moo koy def di woote nga xam ne loolu daf koy dimbali bu baax a baax ci dëgëral ab wooteem waaye itam daf koy eh, jàppale bu baax a baax ci dëgëral ab wooteem waaye day tax itam ñi nga xam ne ñoom lay woo ñu am lu leen yéem ci ab wooteem loo xam ne mosuñoo gis nit def ko ba tax na loolu dana leen dimbali bañu bañu bañu bañu bañu bañu eh, gëm li nga xam ne moom lay woote kon mbir mu xotti baax lay doon moo xam ne daawee su ko gis daawee su ko gis euh, nit di ko def nitu kese di ko def nga xam ne loolu day lënkaloo ak woote ki nga xam ne mooy yonent bi nga xam ne mooy woote waaye mbir moom bu ko defee ba pare lu muy àndal maata xaddihi day ànd mu muy dëkk ci euh, xar baax boobu nga xam ne noonu la def wala euh, mujiza muy kéemtaan boobu nga xam ne moom la def day ànd ak mu ciy dëkk muy dëkkee bihi ci mujiza boobu min xable an yakuna ci njëkk mooy mooy nekk waaqiran di aji tàbbi wa yujizu tey lot zaman jamono jëpp maanaam képp koo xam ne yaa ngi ci jamono nee na yonent yi mujizaat yooyu nga xam ne muy kéemtaan yooyu nga xam ne suñu borom subhanahu wa mu moo leen koy jox euh, saa boo xamee ne dem nañ ba war koo jëfandikoo balañu ko koo jëfandikoo dañuy dëkk maanaam dañuy dañuy euh, dëkk képp koo xam ne euh, bëgg ngaa weddi euh, seen woote bi nga xam ne moom moom la ñuy woote dañ lay dëkk ci sàkku ci yow nga indi lu mel noonu soo demee ba lott nag ba ñi nga xam ne ñooy weddi li nga xam ne moo di seen woote ñëpp lott ci indi lu mel noonu su ko defee moom mu andi ko mu nekk moo gisa di kéemtaan loo xam ne ko suñu borom subhanahu wa taala defalul tawfeex du ko mën a du ko mën a andi kon da ci dëkk ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ngir di ko weddi wala ñooy taxaw ngir di euh, euh, euh, weddi li nga xam ne mooy woote bi nga xam ne moom lay woote jëmale ci yàlla wala di weddi yonent gi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala def na ko moo tax mu ne tax maata xaddihi day ànd mu ci dëkk maata xaddihi day ànd ak mu ci dëkk bii ci moom min xable an yakuna ci njëkk muy nekk waaxeam di aji tàbbi wajon jisu tey lot zaman jamono kulla muaridin képp koo xam ne day diingat anit ityaani ci dikke bi mislihi ci am kemam nasran muy dimmal loo xam ne minat day yaani day tukkee suñu borom subhanahu mi nga xam ne mooy aji e, fayantoo ji nee na kon mbir moomu nga xam ne moom lay def muy mujiza boobu nga xam ne moom lay def Euh, day doon loo xam ne day dëkk képp koo xam ne day day day day muarada maanaam muarada mooy day diingat li nga xam ne moom la indi waaye day doon itam ndimmal loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko dimbalee ci woote boobu nga xam ne moom lay woote moom yonent bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yónni loolu nag yëpp lay xewee bépp yonent boo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala yónni na la euh, euh, saw nit war laa euh, suñu borom subhanahu wa taala dana boole ak ay mujiza muy ay kéemtaan yoo xam ne ci ngay dëkkee képp koo xam ne dafa taxaw ngir diingat woote bi ngay woote mu di yonent gi wala muy diingat li nga xam ne mooy yónni gi nga xam ne moom la suñ borom subhanahu wa taala yónni wala sax muy jiima weddi li nga xam ne moom nga indi te jëlee ko ci suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne mu'jizaat yooyu muy kéemtaan yooyu euh, ab ab jumtukaay lay doon boo xam ne da lay dëggalal sa woote waaye itam day tax képp koo xam ne moo tax taxawoon ngir bëgg a weddi woote bi ngay woote ak yonent gi nga xam ne moom nga doon loolo daf koy mën a daf koy mën a euh, fànq bu baax a baax waaye daf lay mën a défendre bu baax a baax a baax. mu ne maana taxaddi maana taxaddi nag baatub taxaddi buñ ko waxee mooy lan mooy an yafuusa mooy ci mu tuuf mursalun kadi kan yónni bi ayati si doxin ci kéemtaanul dëgg kazaniki noonu wayaxsul te muy am ne na taxaddi da bu ñu ko waxee liñu ci jublu mooy ki nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yónni maanaam uh, am ngañaayul uh, kéemtaan loo xam ne dana ko dëggalal li nga xam ne moom lay woote waaye ba pare mën a def kéemtaan loolu nit ñi di ci teg seeni bët ba li nga xam ne moom lay woote duñu ko mën a weddi euh, loolu bari na yonent yu ko def waaye sëriñ bi radiyallahu anhu andil nañu ci misaal ci yenn ci yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko moo tax mu ne mislun shiqaaqil xamari kem euh, xaru euh, weer wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko almaaruf gi di gañ xam waka kalaami dabbihi ak wax ga nga xam ne waxoon na ko ak mbëtt ma moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam almalo fi gadu gunu miin yooyu benn la ci eh, mujizaat di muy kéemtaan yi nga xam ne eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi woon na ko eh, ngir dëgërale ko li nga xam ne moo di ak yonentam waaye ngir dëgërale ko yónni gi nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala yónni kon xar ku ne xam ne ne doonut lu ñu baaxoo gis kon su ko su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defee loolu dañuy xam ne kon ndimbalal suñu borom subhanahu wa taala moom moom la ci àndal waaye itam euh, mbir la moo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo koko ko ngir mu mën a doon ab tegtal boo xam ne euh, day lëkkaloo ak ab wooteem ngir ñi nga xam ne ñoom lay woo ku ci bëgg a diinar wala nga bëgg koo weddi loolu doon tegtal boo xam ne day dëggal li nga xam ne moom lay woote niki noonu itam wax gi nga xam ne moom la waxoon ak mbëtt ma ndax mbët ku ne xam na ne ci euh, euh, ci ci ci ci li baaxoo xam nañ ne mbëtt du wax kon bu ñu gisee mbëtt mooy wax dinañ xam ne lii mu'jiza la muy kéemtaan la lu bàyyeekoo ci suñu borom subhanahu wa taala ba tey itam loolu day dëggal li nga xam ne mooy woote bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu itam ñu bàyyi xel bu baax a baax ñu xam ne kon mujiza mooy lépp loo xam ne day dëggal euh, mooy bépp kéemtaan boo xam ne day ànd ak yonente yi alayhi salaatu ñoom ñoo koy def di ci dëkk ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy woo ngir weddi bu ñu leen bëgg a weddi wala diingat bu ñu leen bëgg a diingat euh, te muy doon lu xotti baax loo xam ne baax xeesu koo gis euh, nitu kese di ko def loolu moom la ñuy tudde mujiza loolu nag mu ngi mel ni xar gi yonente bi sallallahu alayhi xaroon weer wi ak euh, euh, wax gi nga xam ne moom la waxoon ak mbëtt mi ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, itam ay mojisaat lay doon fekk mel ni am na benn saxaabi buñ doon wax xataada waxoon nañ ne bëtam dafa muuru woon moom tamit ñaari bëtam benn bi dafa amoon jafe-jafe ba du gis waaye bi mu raayee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam Euh, wax nañ ne bët booba dafa mujj leer nañ ba euh, jafe-jafe ya nga xam ne moom la amoon euh, dafa mujj deñ ba bët boobu nga xam ne moom la yonente bi sallallahu raayoon teg ci loxoom sax wax nañ ne moom moo gën a leer beneen bët bi nga xam moom la yoroon kon loolu lépp ay mu'jizaat la yoo xam ne day bàyyikoo ci suñu borom bi subhanahu wa taala mu ne amal amaanatu ndaal kóolute gi nga xam ne moom la ñuy wax nag fahum ñoom yonente yi alayhim salaatu law xaanu bu fekkoon ne dañoo wor salla yal na doole xiiwal uh, ala kullihim ci képp kenn ci ñoom arrahmaanu suñu borom subhaanahu wa mi borom yërmande bi bi fi'li ma ci jëf la nga xam ne kuriha sibeef na ko aw ma wala la nga xam ne xaruma araamaleef na ko la saara kon mu mujj loolee taatan di ak topp loo ñeel leen taxattu man di aji war maanaam nee yenn yonent yi alayhim salaatu salaam dafa war ci ñoom kóolute kon kóolute gi nga xam ne moom la leen suñu borom subhaana taala uh, warale ñu warloo ko ci seen bopp ñoom su fekkoon ne dañoo war kóolute googu war kóolute googu mooy lan mooy ñuy def lépp loo xam ne suñu borom subhaana taala daf ko sib wala daf koo araamal kon loola day mujj nekk ak topp gu war goo xam ne dañ leen koy war a topp ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam kon moo tax ñoom du mën a def lu dut lu suñu borom subhanahu wa taala digle waaye du ñu mën a def lu dut ak topp lenn lu suñu borom subhanahu wa taala sib duñu ko mën a def waaye lenn lu suñu borom bi subhanahu wa taala araamal itam du ko mën a def ndax dañoo amanteeg suñu borom subhanahu wa taala kóllëre dañoo amante ak moom kóolute ci topp ko te it dañoo ñëw ngir jubal dañoo ñëw ngir euh, euh, jàllale am message kon ki nga xam ne mooy jàllale message moom su fekkee ne message bi nga xam ne moom lay jàllale daf cee euh, def lu lu lu lu ñu sib wala lu ñu araam kon ñi nga xam ne ñoom lay jàllale message bi dinañ jàpp ne kon loolu mu def ci lu ñu ko war a topp la te ab yonent lépp loo xam ne def na ko walla mu wax ko dañ ko cee war a roy dañ ko cee war a topp ba tax na ñoom duñu mën a def lenn loo xam ne lu araam la wala lu ñu sib moo tax mu ne li annahu ndaxte moom suñu borom subhanahu wa taala jàlla màgg na amara digle na bil iqtidaay ci roy bihim ci ñoom fil aqwaali ci seeni wax ma afaalihim ànd ak seeni jëf ñu suñu borom subhanahu wa taala dafa digle ñu roy leen ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam ci seeni wax ak seeni jëf comme dafa digle ñu roy leen ci seeni wax ak seeni jëf nag kon ñoom la ñuy jëf lépp ak lañuy wax du mën a doon lu dul ak topp suñu borom subhanahu wa taala waaye du ñu mën a jëf mukk loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal wala mu sib ko moo tax mu ne wa kayfa qad xarama ak ana naka lay aramale rabbu sama borom asamaan kit maana nëbb dëgg kama laana niki mun rëbbe man yafaluhu ku ko def wa huwa te moom anil asyaani wolif mooy ga wal faxshaay ak ñaaw téef ga aydan ba tey naxaa tere na alkullu lépp bila sisnaay ci lu du sette ne na naka la xel di nangoo suñu borom bi subhaanahu wa di aaye maanaam di araamal nëbb dëgg ba pare rëbb képp koo xam ne def na ko waaye itam euh, tere lépp loo xam ne mooy ñaawteef wala lépp loo xam ne moo di ak mooy ba pare di leen di leen di leen di leen may ndigalal ñu koy def ñoom yonante loolu dulu xel nangu kon ñoom mënuñoo jëf lu dul suñu borom subhanahu wa laa digle moo tax mu ne euh, suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo araamal nëbb dëgg araamal mooy araamal ñaawteef euh, tere itam ñu koy def euh, kon naka la mën a araamale loolu ba pare tere ko wëlbatiku yonante yi alayhim salaatu salaam ñi nga xam ne ñoom la yónni ngir ñu leeralal ko loolu ci eh, jamono ngir ñu leeralal ko loolu ci mbindee yi ñu wëlbatiku du def loolu kon loolu day am li ñuy wax taar bu baax a baax day am ak woro bu baax a baax eh, ndax kon day mel ni lu suñu borom subhanahu wa taala tere ak ñoom li ñuy digle wala ñoom li ñuy jëf day wuute lool te it day am tanaaxut bu baax a baax kon loolu eh, lu jomb la te it lu mënta la yeneen yi alayhim salaatu salaam nëbb day jomb ci ñoom waaye mooy ak def lépp loo xam ne ñaawteef la itam day jomb ci ñoom moo tax mu ne wa huwa aynul isyaani wal fahshaa'i aydan nahar kullu bil istisnaa'i bi ayni burhaanin ci euh, euh, dëgg-dëggi lay al amaanati mooy kóolute ga badaagoog feeñ na burhaanu tabliixin layu jotal li nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala liman ñeel képp ka nga xam ne xat naqada ca dëgg-dëgg euh, gëstu na euh, xam-xam kon ñoom lenn rek moom mooy li nga xam ne moo mën a yell ci seen jëmmi yi mooy kóolute waaye mooy tabliix kóolute googu mooy li nga xam ne moo leen di fekk ci lépp loo xam ne moo di ak mooy wala ñaawteef waaye tabliix googu nga xam ne mooy jot li leen suñu borom subhanahu wa taala yónni loolu moo leen di fekki nëbb lépp loo xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala euh, yónni ñoom yonente yi alayhim asalatu wasalaam kon loolu euh, lu ama am solo la ñu xam ne yonent yi ñoom suñu borom subhanahu wa taala daf leen di jox ay mojisa ay kéemtaan yoo xam ne moom la ñuy àndal bu ñuy ñëw ngir dëgërale ko seen woote te loolu itam day doon loo xam ne Euh, mbindeef dañuy lott ci lu andi lu mel noonu su ko defee loolu day doon benn dëkk boo xam ne dañ koy mën a dëkkee ñi nga xam ne ñoo leen di bëgg a weddi wala ñi nga xam ne ñooy bëgg a weddi woote bi nga xam ne moom la ñuy woote kon ñu ngi tuub bu baax tey jégglu di wax in uridu ilal islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala